fi nekkoon ay jamono ministre bi ñu dénk wàllum justice génn ab communiqué nee na amul kenn koo xam ne mën naa yàq deram wala mu koy saltel wala mu koy tilimala te nag ba ci dara képp koo xamante ni yaa ngi koy bëgg a sosal dina la yóbbu fa mbaxana doonee benn moom Aminata Touré ne conseil économique social environnemental yorin wu baax laa ko yor te nag sama déclaration patrimoine jébbal naa ko waa OFNAC moom Aminata Touré daal di wax ne am na xel mu dal yéen a bi mu fi tegee ab na ñoo gisuñu si seen bopp moo tax dina am yeneen décret xam ne dina wàcc ngir ñu daal leen di tabb ci biir réew mi ak bitim réew ngir man leen a neexal yéen a kaay gii di la turbine wàccul Aminata Touré daal nay wax ne moom Mimi Touré yëkkati na ay kàddu taañaañal ci Macky Sall ba pare daal di menacé yéen a kaay gii di la témoin nee na ñaareelu phase bi complot bi nga xam ne ñoo ngi koy complot ci Aminata Touré dafa mel ni mooy door yéen a kaay gii di Dakar Times nee na Aminata Touré jamono ji lu def dañu ko fay boroma te nag ku fay sa bor nga mer la nga leble woon moo baaxul ndax Aminata Touré moo nekkoon ministre bi ñu dénk wàllum justice ci réew mi bëri nañ ñoo xamante ni Aminata Touré tegoon na leen fitna ku ci mel ni Hissène Habré Karim Wade Aïda Ndiongue Cheikh Béthio Thioune Farba Senghor Ousmane Ngom journal bi nee na ñii ñëpp ak ñeneen ñu nekk ci PDS jamono ji Aminata Touré di nekk ministre de la justice daj nañu loo xam ne mburu daju ko ci ab pour yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na nag li nga xam ne moom lañ nemmeeku ci ba tàqali ko rek Jaxate maître Moussa Diop mi jiite woon Dakar dem dikk te nag jamono ji ki nga xam ne mooy Aly Ngouille Ndiaye Amadou Ba Makhtar nañu xaar seen wàll yéen kaay gi di Rewmi Quotidien ak Vox Populi ak Le Témoin nee na lu jëm ci wàllum passation de service yi njiitu réew mi di président Macky Sall daan nay tere lépp loo xam ne jëm na ci wàllum folklore maanaam xumbaay mi ak mbumbaay mi Macky Sall daan na koy tere yéen kaay gi di Direct News nee na Macky Sall daan nay jàppe Tiwaawan ak Touba te nag Senghor muy Abdou Diouf bu ñu doon fal ab gouvernement danañu xool ci xeet wi xool ci wàllum diine ji bi xool ci géographiquement région bu nekk fa nga féetee waaye nag jamono ji li nga xam ne moom lañ nemmee ko ci Macky Sall maanaam falul ku dëkk Touba falul ku dëkk Tivaouane te nag ñi nga xam ne ñooy waa Tivaouane mer nañu lool ci Makhtar Cissé mi nga xam ne tekki nañ ndombal tànkam loolee neexul waa Tivaouane yéen a kaay gi de la témoin daan nay xëy wax fin de mission pour un brillant soldat de la République loolee Makhtar Cissé la ko jagleel journal bi nee na Makhtar la waaye xarañ na lool ci lu jëm ci wàllum politique a kaay gi de A gynécologue la ñu fal ko ministre bi ñu dénk wàllum artisanal toj na mbir mi te demagul fenn moom nag dafa dajale ay ñoñam ne leen bu njëkk dañu doon sédd waaye nag jamono ji ñun ñooy le maanaam tong-tong bi moom daat na koy commencé yéene kaay gi di réew mi quotidien wax na ci lu soxal université bu Thiès bi nga xam ne ma Sall nee na Iba la ñu koy tuddee Mohamed Boun Abdallah Dionne sa ndaje ma yëkkati na fay kàddu jaajëfal njiitu réew mi di président Macky Sall na li dox seen diggante maanaam koo jiitu yéene kaay gi de laas mu ñu xamal naan ñu Ousmane politique bi ñaar ñii ñoo ko occupé ci ay mitin ak ay tournée yoo xam ne ñoo ngi koy def bëri na ñoo xam ne ñoo ngi jugee ci ay langue dem di fekki Ousmane Sonko yéen kaay gii di Vox Populi xëy ñu xibaar naan ñu ONG Alarme Phone daan nay wax ne lu jëm ci wàllum immigration clandestine gi lu toll si ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk faatu nañ ci géej gi ci loo xamante ni benn semaine rek la maanaam 480 morts la ñu nemmeeku yéen kaay gii di 24 heures Mamadou Lamine Diallo nee na Macky Sall ci boppam moo mën a yàq espoir ndaw ñi jamono ji amatuñu espoir ku fi am espoir Macky Sall Sall yàq na ko yaakaar bu tas la ndaw ñi di dundee jamono ci réew mi quotidien wax lu jëm ci wàllum njàng meeg njàngale mi nee na ñi nga xam ne ñooy doog di am bac lu toll ci 37 256 bacheliers yoo xam ne inscrire nañ journal bi de la Tribune nee na lu toll ci 13 953 nouveaux bacheliers yoo xam ne ñoo ngi lambar lambari ba léegi ni kenn orienté wu na te état bi moo waxoon ne mboolem ñi am bac ñëpp la ñuy orienté te loolee defugu ko maanaam jëfeegu ko journal bi wax na ci mission d'information bi nga xam ne waxoon nañu ko sa assemblée nationale ngir ñu saytu inondation élection yee xaalis bi nga xam ne dugal nañ ko si ak nan lañ ko doxalee membre yi nga xam ne ñoo sa bokk kenn ku nekk jox nañ la un million deux cent te ba léegi ni benn rapport joxaguñ ko Macky Sall te nag mayoon nañ leen ba fanweeri fan ak benn ci weeru octobre le témoin ak réew mi quotidien xëy di ñu xibaar lu doy waar loo xam ne am na ni ki démb ca tribunalum Ndakaaru ay nettali benn maçon moom moo rey chef de chantier journal bi nee na la leen jotalee maçon bi nee na daf koo laaj payooram mu bañ koo fay mu jël peel ba dóor ko ko ñetti yoon ba mu sedd guyu mu gas suul ko journal bi di stade bàyyi mbir moome wax ci ligue des champions beek match yi nga xam ne tey jii dina am Paris Saint-Germain ay mbiram dara leerugu ci ndax dina dem ca Leipzig Neymar du football Mbappé du football Edouard Mendy ak Alfred Gomis ñaar ñii di ay doomu réewum Sénégal di ay góol ñoo ngi nag xeex ana kan mooy jël place bi ci équipe nationale bu Sénégal Edouard Mendy ma ngay toj Chelsea Alfred Gomis ma ngay toj France yéen kaay gi di sunu làmb wax ci lu jëm ci wàllum CNG ak Aliou Sarr mi xam ne moom la ñu fay jëlee te Aliou moom moo raje woon ñi nga xam ne ñooy arbitre yi jamono ji nag soo moytuwulee danañu leen delloo